da koy bañ Sénégal du dëjëw ndeyam du pays boo xamante ni pays bu nit war dëkk la yéen bokku leen ci réew yi Sénégal da nga koy wax fii Europe nga ni Sénégal ñu la Sénégal ça lan la Zidane waxoon Sénégal ça trouve où xanaa xamoo Sénégal ñu bari xamuñu ko billaahi xamuñu ko maanaam boo nekkee Afrique si ngay xam ay Sénégal Sénégal tojuñu fenn fenn nag tojuñu fenn taal leen euh, partagé leen ngeen tappate mu gaaw léegi police Sénégal ban droit nga am di dóor doomu jàmbur xanaa xamoo Europe bu la police arrêté da taxaw. su la laajee document nga làmba sa kalpe génnee document jox mu xool li muy xool delloo la ne la nii tóojal la ne la Ketengas Buenas noches bu dee guddi la bu dee bëccëg Ketengas nas tardes ci ngoon gi bu dee ci suba la mun la Ketengas un bon dia wala mun la Ketengas un bon bon bon maanaam Buenas jornada daal jornada journal bi daal dañ lay wax yooyu ñemewuñ laa dóor billahi policier bu fi dóor nit ñu toj sa cottu ndey fii ci Europe ku fi dóor nit ñu laax sa data ndey dootoo dóorati dinañ dëgg sa ndey ba ngay raam nii ah di dox nii maanaam war a laax di jaay am ci bénéfice dootoo ko bëgg da bëgg katta sa ndey di laax di jaay di ko lekk di ko booleeg ay xewal dina mel ni ñu yéyloo la kaan xam nga ni yéyoom kaan yi dañu kat ba ngay laax di yow dootoo laax di jaay am bénéfice boo jaayul nooy amee bénéfice li nga war a jaay di ko di ko dundale sa njaboot nga koy laax di ko lekk dañuy toj sa jotu ndey ba ngay laax di ko lekk dina mel ni ñu yéyloo la ay kaan surtout kaani guwaanaa gi ak kaani gi espagnol di wax gindi ja gindi ja kaani la de Sénégal safuñu yéen saflewu leen seen kaane saful cottu ndeyam lépp Europe moo leen ko dàqale man ñeme naa taxaw ak police Europe ma ni ko sa cottu ndey ma ni ko sa diggul fa ndey man ñeme naa ko bis bu yàlla sàkk ma def ko réew parce que maa ngi ak samay document légal naa yoon bi bu ma def bu ma police tooñee ma ne ko sa cottu ndey ah waaw ixo puuta laa koy wax sa yaay doomu cagala mooy ixo pouta xam nga ni ñeenti policier yii ay ixo puuta lañ bu ñu doon espagnol ma ne leen vous êtes des ixo puuta ixo de puuta mooy doomu caga ndax boo fonkee sa yaay boo demee fi nga war a attee jaam yi yow policier yaa war a yor kaaraange sénégalais yi yaa war a sàmm yow nit ku nekk ci danger bu la gisee dafa war a oh, oh, oh policier Europe <laughs> yàlla boo ne ci danger ba gis leen dañ la yombalal numéro bi cent douze la même soo amul crédit boo wootee jot leen c'est gratuit mais Sénégal dangay woote waa police ñu naan laan non booy xaaral loo woon nga ne ci danger doomu cottu ndey mi téela ba sa crédit fay doo mën a woote réew mu tot cottu ndey mii bu du woon teg sama yaay dootuma fa demati li ma gën a metti sama àdduna mooy bu ma xoolee sama carte d'identité mu def Sénégal un peuple un pays une foi dama naan cottu ndayu lii dama naan cottu ndayu lii lan moo tax yàlla defuma man ma doon ma doon américain man sama style man boo ma xoolee même mën naa doon africain mais ay ivoirien wala ma doon ay nigérien maanaam man sénégalais du ma romb ci dëkk bi fii sax di ma teg sénégalais c'est que yéen da ko xamul leen ma man dama bëri tiitër man dama bëri maanaa man dama mën a sance comprendre leen de maanaam man ancien mannequin laa woon dama daan dox ci ay passerelle comprendre man slip sax bu nekkul Calvin Klein wala mu nekk Versace wala mu nekk ay Louis Vuitton wala mu nekk ay maanaam marque Drissi man duma ko sol comprendre ngeen man maay dof doflu parce que sénégalais yi soo bëggee di wax ak ñoom da ngay wax waxi nit di ci dugal ay waxi dof bañ jàppee la dof ngay wax say waxi nit bu ngeen ko weddee ngeen wàcc sama direct bi ngeen dem ci ñi gën wax wax ju baax nga xool ba xam ñoom am nañu leen di seetaan ah je suis plus intelligent que vous arrêtez leen commentaire yi maa ngi koy gis maa ko tey bañ ko wuyu lépp laay lire. xoolal maaka dama ni policier dinaa jël nit ñi ñu yéeg tot seen cottu ndey yéen ñeent ñi seen dëjaw ndey seen saram ndey yéen a toroxal jigéen yéen a yàq jigéen yéen a def loo xamante ni bés bu ko waa Union européenne gisee dañuy toll Europe carte ndeyu Sénégal def ko dóom balaa boobu nag ma dem Sénégal jëli sama yaay indi ko ku ci am sa yaay Sénégal dama nga jëli ko baa nga am sa jabar demal jëli ko baa sa doom am nga dem jëli ko ngeen kat seen diggu la fanda yi di bàyyi nay bi ngeen nekkee ak soxor gi fii ngeen ne ci Europe ku leen bëggoon a yóbbu Sénégal ngeen dëkk fa du ngeen ko nangu nooy amee ndeyu sa jabar nga bëgg ko mu bëgg la nga kat sa diggu la fanda yi di ko bàyyi Sénégal muy toog foofu di dox di dëkk ay day Sénégal tàngoor weeg mbooyee mi tam mooy toog Sénégal di sol ni may solo xoolal li xoolal li may solo Sénégal heure bii ku ci sol lii dangay ngay gàtt sa day xëm man li may sol di toog sama salon nii ku ko ci sol da ngay gàtt sa day xëm ñu woo sapeur pompier mu dëgg sa nday ay raakool. policier senegal yalwaan ci tali bi ngeen fa nekkee di wër di yalwaan di wër di santaas doomu aadama yi ci biir tali bi. da ngeen di xëy di boxom ay yéen yéen a bon super bu amul carte grise nga war ko daggal mu dem fay ji ngeen dëgg seen ndey encaissé ko deux mille francs deux mille francs oto boobu jaarul visite oto boobu amul visite technique oto boobu xooluñu ko saytuwuñ ko pour mu war a daw ci tali bi moo tax chaque jour nga gis accident bu catastrophe yéen policiers yi yéen a tax dëkk bi di am accident yéen toj seen nday ndey nekk ci tali bi di lekk alalu jàmbur yi nañ ko teg ci yoon ay nit doo nga ngeen barki salaatu fatiha bise ngi ñëw di ngeen retraité bise ngi ñëw ñu kett seen diggu la fa ndey dugal leen ci biir bàmmeel du ngeen ci man cottu ndeyam fa ngeen di nekk malaakam malaakal mawti ak nakkari ak ninkir ñëw di leen wax man rabbuka ngeen kat seen diggu la fa ndey du ngeen xam lu ngeen di def métier bu la ko yàlla joxe da nga jaamu yàlla waaye doo ci toroxal nit man audio yi ak vidéo yi li muy bari bari yépp dara ñoruma ci lii rek laa ci ñaawlu booy Pastef yi ku ci génn di leen jaay réewande police Sénégal yi toj leen seen cott nday ma booy patriote yi buñ ñëwee di taal dëkk bi jàpp ñoom ñëpp ngeen kat seen nday waaye jigéen mënoon ngeen xool benn benn benn booy bu ci gën a réew ngeen toj la fa ndeyam su boobaa man duma ci wax mais su ma paree fii dinaa dem ci euh, capitale Barcelone damay dugg déggoo ma de damay dem police générale ba laa leen di yóbbu dama leen dénoncé dama leen boole tubaab yi wax naa leen ko ci suba suma vidéo bi dinaa leen boole barke Seydina Mohamed je dénonce duma yam ci lii de maanaam vidéo bi laay jël yóbbu ko ba commissariat général bu Barcelone laa ko yóbbu fi ma dëkk nii ak foofu noonu daa une heure de temps mais garaawul damay jël sama temps man yóbbu vidéo bi wan ko général général laa koy wan man xoolal dama légal ci dëkk bi dama ànduroog dof mais dama yor avocat tubaab la maa ngi moom tànk ak tànk ma boole na nag policier Europe maa koy yóbbu ba police général Barcelone ñun dañuy policier yu ndaw bu Sénégalais yi réagirul Macky Sall bu waxul ci ñett ñeenti policiers yi jàppaleen toj seen cottu nday man Sokono stress maa ko garanti Sénégalais yi maay jël vidéo bi yóbbu ko ci ba ci général police Barcelone les Mossos ay caaxaan de dañuy toj seen cottu nday teg ci axe Mossos yi yoo xam nga Mossos <laughs> Mossos du Carabinieri de xam nga Italie mooy am Carabinieri carabinieri yi moom dañoo toj seen cottu nday ñàkk jom mooy policier itali ku la ci jàpp ci tali boo yoree pizza boo ne ko un pizza pour rek mu baal la policier Italie yi ñoom ñoo gën a toj seen cottu nday ñoom soxlawuñ xaalis am nañu xaalis ñoom soxlawuñ neexal ci tali bi bu a jàppee ñoo yore comme nii sa benn carton pizza te damaa demoon Italie nag gars yi bu leen ma ko jàppee nag gis ngeen nii xaar leen ma dindi affaire bi ngeen gis tey li ma añee tey dama dama dama xawoon a jàdd Italie nag xas naa leen ba sonn waa Italie wax dëgg yàlla chaque jour ma xas leen waaye tey nag moom damaa dem ba Milano jàll Venezia jàll Bergamo ñu foog ni falaa yem ma dem ba Torino waaye ki Cheikh Tidiane muy nuyu sel saw borom Italia maam jaara borom néegi Italia Cheikh Sall maa ngi lay nuyu borom yaraax borom Italia sama mag ji Cheikh Diop sëtu Sapa Gànna Diop ak Samam Gànna Diop Maseer jóob mooy sa baay ak Rasulaay yaa bokk ak euh, euh, sama waa ji Moussa Gueye borom ñaari jabar jabar tubaab jabaru nit ku ñuul di loo sa ndey wàcc su man sa ndey ci suuf doxatal sa nopp ndey ci suuf Cheikh jot bi may wax man su ma naawee moom day naaw ma nga ba Italie tey nag li waa Italie dundee moom laay añee tay mais nag bu ma ko añee tey dinaa toog ay lu yàgg duma ko lekk waaw pizza Italie moom tiitër gi rek góondi rek pizza la ñuy dundee spaghetti lañuy ñuy dundee moodu moodu Italie policier Italie bu la jàpp booy dem Italie boo yoree sa oto jëndal pizza téye ko policier dañoo toj seen cottu nday ku la ci arrêté du soxlawul mil soxlawul ñaari junni ñoom am nañu xaalis ñoom pizza la ñuy dundee policier boo ci may pizza rek mu ubbil la frontière yi seen cottu nday nag yéen policier Italie yi. moo tax cas bi jaru may dem ba Italie di ko di ko joxe léegi nag dugg leen entre temps ma yeggali sama añ bi maa ngi nii damaa dem ba italiano di nuyu waa Italie yëpp. Cheikh Cheikh jaw maa lay nuyu Séeri Maada Gueye lu yàgg dëgg la Cheikh Diaw Fara Diaw Fara ma Diaw xoor Yoro Diaw Fara ma Diaw xoor Yoro Diaw Fara Fara Diaw Fara booli mbóoj sama waa ji borom Sénégal happiness nuyu naa la kaay xappi kaay baax maa ngi Italie toog nii côté Venezia léegi dugg leen yow katta sa ndey dugg leen rek nga dugg waa baax na duggal di wax te bu ma jàll benn baat boo ma jàllee baax ma tott tott ndey waaw wax ji fin yaa ngi may dégg sa sa micro bi day aaw de nu mu demee noonu dilo dilo waaw man maa ngi añaale samay pizza mais Soko est de que xam nga leen. ñu waxtaan. waaw. est-ce que xam nga ne sa baaxul de Soko. sama ndigil. waaw sa ndigil xam nga dañuy ndig góor quoi. léegi yow sama góor jigéen nga. non sa ndigg baaxul. ma ne xanaa donc nga am naka la góor bi xoolee moromu góoram maa ngi sa ndigg baaxul man kay da ngay def nga laaj sama sama gel ngay laaj. wala cër boo xamee yow sa ndigg baaxul nga laaj ko ba xam man sama ndigg baax na wala baaxul beneen bi gëttal sa ndey nga changé sa téléphone bi nga ñëw demandé sa téléphone bi day katt sa ndigg bi day riir gëttal sa ndey maa gën a baax la sa baay ndigg sa baay maa ko a baax la ndigg allo doom sa téléphone bi mooy riir booy moo tax ma wàccee la day riir keneen ak yow. waaw salaamaaleykum. yaa ngi baax. wax leen ci actualité réew mi man nag d'accord ma policiers yi di toroxal nit ñi. jigéen waaw man moom loolu moo dañoo toj seen cottu ndey yi. war ñoo dóor jigéen ñi. waaw dëgg. dëgg yàlla jigéen moom sometimes nga daje jigéen ñu dëgër bopp nag mais jigéen moom góor yàlla dëgg dëgg dëgg nga ne góor yàlla nga yor xuur yu baax. war nga di ko te jigéen. yoon say dambal yu wóor. voilà ak góor ak jigéen nu mu mënta jigéen léegi nag moom dañuy taxaw dañuy jéem a taxaw taxawaayu góor mais nuñ mënta rek jigéen lañ. léegi képp ko maali képp ko ma jàllale message bi képp na ki ngeen gis mooy maam góor gi Njaay keroog barki démb xaw ma bi ñuy déclaré lacrymogène yi. waa kër Ousmane Sonko yi ñoo ni maam góor gi Njaay maanaam lacrymogène yi lacrymogène yi moo ko rey booy patriote yi ñoo koy wax ak journaliste yi loolu nag xam ngeen xam ngeen ma yéen man waxtu dëgg la loolu yëpp ay dul yàlla moo sàkkoon paa bi jëlaat na ko yàlla na ko yàlla yërëm te xaarit ko àjjana sëtam ñëw na Malick kii kan la yow. sa goro la sa chaque jour nga ñëw ak jigéen différent naa man sa goro man ñaata goro la. yow kii kii kii kenn la nga naan jigéen sama débat bi waxal continuer. léegi kii nga fi taf nii ak li may wax lan la jotee ak moom. non continuer rek. non dama lay laaj. lan moo ci yoonu kii nga taf nii. kii dafa dee. wala wala wala ko biiral wala dafa am cas wala wala dafa yor le motif wala lan mooy cas bi lan mooy problème bi ba nga. sama kii sama kaala sama kaala man. sa kaala. sa ci biti. fii sa kër bàyyi la demal ci sa kër yow nga sa ndey nga teg fa sa kaa bi xale bi di mel ni cagafas solom gii mu sol foogoon naa ni jóor jéey rek ay colcol gu bon gii nee ko sama papa nee ngay katt sa nday di sol lu yiw bëggul jigéen buy vulgaire wax ko bu dee may sa baay tànnal ci xale yu baax xale yu yiw yi ñu toog seen pooju nday ak seen pooju baay yi te nga bàyyi ma cagg ji nekk ci tiktok bii di paccal seeni ween di génnee seen rooroo cus-cus di nàmpal móodu móodu yi di nàmpal émigré yi xanaa xa yëguloo yow xale bu jigéen bi saa boo génnee say cus nii bàyyi ko mu marqué nga tëbbal ko naan nii yaa ngi nàmpal ay immigré yaa ngi nàmpal ay million million clandestin yaa ngi nourrir àddina ngay nourrir képp leen seen awra yi liggéey da ngay kepp sa lëf li seen jamono man dama yéen man suñu jamono man dund naa lu yàgg Malick papa non dama lay wax rek yow léegi Malick damay débat quoi nañu wax ci coowal boo amul loo ci wax nga waay man am non am naa lu ma ci wax nekk ci nga nekk quoi. door jigéen kay am na lu ma ci wax lu bari sax. loolu ko cottu sa jabar ji. sama jabar ji na da ko war a laaj comme dama koo bugga man cottu ndeyam. voilà. nañu wax ci débat bi kuy door jigéen bi ñu jàpp dañ la a nokk. ak ñëwal ci débat bi policier yaa ngi nii ñoo fi. dóor policier dañoo toj seen nuk dañ ñii dinañ nukk seen ndey xaaral rek. léegi looy laaxatu yow di wax. non <laughs> eh, papa. yow xam nga ne mooy laaxatu. man man dèjà man nukka nukka police sénégalais yi loolu loolu moom du ma si laqatu xaaral ma taal suma suma suma lamp man amul benn police sénégalais boo xam ne ragal naa la police sénégalais yëpp seen tuunu baay. xam nga ma añu parce bi xeex xam nga li problème ma ma ma ma pare. Euh. am na ñu lekkul tey Sénégal am na ñoo xamante ni añuñu tey. te li may def nii baaxul di leen won sama añ pizza am na ñoo xam ne gën nañ ko lekk xam nga lekk pizza yombul. fi ma nekk dafa lëndëm. xoolal Sarata moo la ëpp fula damay kat sanday donte sama doom nga ma dugal saarata moo ma ëppal njëriñ ci kaa bi yii kaa moom Sarata moo la ci kat ndey ma ëpp xam-xam. tere tàkk bu tere tàkkee rajo ni kamaj doom fay naa def waaye sant yàlla bu baax maa ngi lay nekk ci live bi yëpp bu baax a baax wax euh, Malick la plus belle nuy naa la di wax <laughs> Malick boo jugee police yi rek da ngay nekk ci loo xamante ne que du yoon parce que ñëpp ay jigéen lañu ñun ñëpp ay jigéen lañu bu jigéen defee naka sudul noonu daf ñuy métti. mais kenn warul góor kenn warul góor dama ni la ma ne. waaw xaar xaar ma sama doom nga mais dangaa ma sax man sa doom laa lu ma ko ndax te xam di dóor kenn dóoraate moom amul droit. kenn waaw may ma ma wax la papa Soko man gendarmerie jël si wu ma woon sama kër. waaw. sama problème ak Gabriel ak Gabriel ah, Kane. loolu moo tax bëggoo leen wax dara. d'accord naa déedéet defal ndànk rek lay expliquer bi ma jël see nan la demee. ta man ci damaa fi nekkoon man jigéen ma ma nettali la papa Soko. nettali ko. waaw kay nag xam nga police ak gendarmerie xam ne ku nekk lii droit am kii ko def nii xam nga rek am na ñoo xam ne dañuy xool ñi di ko xoole sëram papa Soko man gendarmerie moo ma jël si ba sama kër dig ma jël see kenn ki maj naa ko. matt naa ko muy seex bi te seen loxo yëkkatiwul dal ci sama kaw billaahi wallaahi wa taalaahi ku dee ak sa bàmmeel mbéj naa leen màtt naa leen man ak ñoom kese ak yàlla amul kenn ci ñoom ku yëkkati loxoom xaaral rek amul kenn ci ñoom ku yëkkati loxoom teg ko sama kaw loolu bu doon waaye Papa Soko loolu Sarata loolu bu doon ci moo la déglu rek Malick may ma rek Malick may ma rek Malick may ma rek non man kay dafa am lu ma koy leeralal tamit moom. bàyyil jàmbur. ma man maa Sénégal man maa ngi Sénégal di dund Sénégal man Sénégal bii laa nekk génnuma Sénégal. yaa ngi dégg des fois génn duma génn ak sama pièce d'identité sax ñu romance ma donc man li may wax xam naa ko bu baax. Papa Choco lan la jigéen di wuti ci réew mi tax. dëgg dëgg. xale jigéen ñi di wax yëpp ay métti lu nañ ko naqar nañ. xale bu jigéen mel dafa teg ko def di yoon waaye boo ko xoolee ba ci biir xale bu jigéen bi ku katt ndeyam ñàkk kilifa la ah. ku katt ndeyam ñàkk kilifa du loolu de. gis nga policier bi ci kambañ ci kambañ xam nga lan la ko xoolee xam nga lan la ko mbégee maanaam jigéen day def yëpp jigéen. vraiment. gis nga jigéen yu nekk Sénégal di bandi bandi di sol ay yëre góor ak di def ay yëfu góor góor ak jigéen mënuñoo dund ba yem wala ñu tolloo. waaw man loolu wax naa ko. jigéen day def yëfu jigéen. ana jigéen ak ay manifestation non autorisée. nee naa nee naa ko nee naa ko am na jigéen ñoo dëgg dëgg dañuy jéem taxaw taxawaay may ma rek Malick Malick may ma rek Malick après may ma dinaa. teg moom loolu may moom xanaa ma wàccee ko. gis nga non non mais. jigéen ñi di wax yëpp <laughs> waaye après dinaa la may Malick nga wax ma teg sama micro. xale yi jigéen ñi di wax du kenn ci ñoom ku dem ci manifestation non man Seydina Limaamu Laay moo woote nii muy appel bi xale yi jigéen yaa ngi dem di préparé wu di dem di xool nu ñu demee fële ca ca ca Cambérène ñaani seeni soxla yàlla antul leen seeni ñaan ñi nekk ci sëy ñi ngi dem ñaan yàlla gën leen jubaleen ak seeni borom kër ah ñi sëyul ñi ngi dem ñaane pour yàlla may leen borom kër yu baax yow amoo loo choisir lu dul dem ci manifestation ba léegi la jigéen di wut ci manifestation di taal di teg sol say bot ba pare takk ay gan léegi nag police xale bu jigéen bi lañu war a tot tottu ndeyam kon moo ko def kon lan lay wuti ci manifestation takk gan nous sommes dix huit millions de sénégalais ñun jigéen ñu ëpp fi lan tax amul yeneen jigéen xam nga li ko police bi dóor ko mooy maanaam jigéen day def yëfu jigéen daf ko jox leçon c'est une leçon très bien mais nag. dafa laal dañuy leçon publique maanaam li yar la gis nga Sénégal ah. Papa Soko. Sénégal police Sénégal. yow yow boo jotee sax papa wala sa yaay sax nga dem toog boo am dëgg ci seen kaw. mais sa Europe du Europe du Afrique bàyyi leen di tëkkale Europe Afrique nous nous en Afrique on a nos réalités ñun balaa dara xew dañoo am suñuy réalité amul kenn kuy jotee sam mag wala sa yaay mu def la lu ko naqari nga yóbbu ko police wala gendarmerie même bu nekkee yow yaa nekk ci dëgg xoolal yaru Sénégal bi la ñuy teg si kaw yaru Sénégal bi maanaam éducation Sénégal bi lañ lay indil éducation Afrique bi man na je suis africaine sénégalaise et fière d'être africaine et sénégalaise képp kuy ñaawlu la xale bu jigéen bi di def te ngay jigéen génn nga dem manifester yéen bu deewoon foofu moom moo perte buñ ko yow damaa xamul naka ngay xeesalee ba sa yaram xonk coy yow Anta Babacar Ngom bi tax ngay xeex wala Ousmane Sonko wala Bassirou Diomaye Faye wala keneen ak keneen gisoo fa seeni jabar. kii Sénégal lay xeexal Sénégal xeexul. Ousmane Sonko xeexul Sénégal lay xeexal xanaa ñun ay sénégalais. Sénégal lay xeexal dama ni jigéen day def yëfu jigéen. jigéen day def yëpp jigéen mënoo doon jigéen xale jigéen ñi dañoo nekk léegi Sénégal doon jigéen ah. bëgg a def seen bopp ay góor di bandi bandi di sol ay caleçon góor ak di sol ay daalu batu góor ak di takk ay ceinture góor ak di sol ay u góor dama góor góor mënoo wax ba mu mel ni jigéen. man de loolu génn leen nekk nii. policier bi lu mu def du dara lu dul une éducation lu mu jàllale. éducation donc la jàllale. police yaa ngi fi matin midi soir di jàpp xale jigéen ñi te dóoruñu leen xale jigéen ñi ñu ngi leen di jàpp te kenn te kenn tali bii tali bii yaa ngi génn di ramasse xale jigéen ñi duñ leen door duñ leen mbaj duñ leen maltraité mais ça fait mal nga gis benn manifestation boo xam ne seen non autorisé nga xam ne ñii dañuy yàq sa réew yow en tant que policier nga xam li ngay subir ci terrain bi nga gis benn xale bu jigéen bu sol ay yére yére ay botam ak ay kiyam di jaay am fit sol ay gaawam ñëw ne day jàkkaarloog la police mu teg ko waaw léegi Soko Soko dama lay laaj Soko yow Europe fii nii du jigéen ñi ñoo de. yow Sénégal léegi bëri naa fi ah Soko. nga ni. du du manifeste bu amee jigéen ñi ñoo fay ëpp góor ñi. lan mooy jigéen ñi ñoo góor dama lay laaj. loolu ça dépend rek. ça dépend comme nan. mais ñoom du ñu ñëw di manifester wu du ñu dem sax ci manifestation boo xamante ni non autorisé la c' que il faut nga c' est <laughs> non attends maanaam manifestation bu ñu autorisé dafay couverture avec la police nationale. avec général ñu collecté ko. yaa ngi dégg ñuy dox ndànk di lijjanti seen i problème xam nga la kan may woote nii. comprendre xaar ma mu may ma tuuti alo allo. waaw dama nekk ci live bi te actuellement nii haut bi moo nekk ci téléphone bi nag. ok ça